bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala maa ngi tàmbale samay kàddu ci turu suñ boroom di wax bismillah di sant suñ boroom di julli di salmal ci ab yonentam ak ñoñam ak i saxaabaam ginnaaw loolu ñoo ngi nuyu mbokk yëpp nuyób islaam te mooy asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. am mbégte ñëwaat ak yéen genn ci genn xasiida ci xasiiday seexul xadim yi muy barakaati yawmil mawlidi rabiil awwali barkay bisu gàmm ci rabiul awal bisub juddug yonent ba barkeb bisub juddug yonent bi ci weeru gàmm moom la sëñ bi tënkee xasiida gi muy ñaar fukki bayit ak ñeent toll ak xarafi laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah xasida gi xasida gàmm la bu ñu waxee xasida gàmm mooy xasida yi sëñ bi doon yi tënkee weer rabiix wala weer am am mawlid wala laylatul mawlidi wala yow mawlidi wala yu am loolu xasida yooyu sëñ bi tënkee baat yooyu te muy ginnaaw géej gi tam nekk ci diwaanu faydil baaqil xalaayiq fii mawlidi xayril xalaayiq xasida yooyu yëpp sëñ bi bind leen ci bisu gàmm wala ci guddi gàmm xasida gi ci yooyu la bokk xasida gi ñaar fukki bayit ak ñeent baxru rajas la sëñ bi mu ngi ko way ginnaaw géej gi sëñ Tuubaa nee na képp ku bëgg a jariñu na farlo ci li ma bind ci ginnaaw géej gi loolu kawe na ci lu ndogu lu dul alxuraan ak xadis rek xasida yi ma bind ginnaaw géej gi moo la féete kaw te nag walaha barakatun azimun azimatun lam takun fi xayriha min tawaarifi am na barke mag yoo xam ne nekkul ci yeneen taarif yoo ko jiitu woon kon xaside gi ci xaside yi ginnaaw géej googu la bokk njaareem la ko sëriñ bi defaree du sori ay juróom benn at ci njaareem ci walsas du sori foofu xasida gi nag xasida gàmm la wax naa ko léegi waaye xasiida uh, wéetal yàlla la waaye xasiida uh, sant yàlla ci alhamdulillah waaye xasiida delloo yàlla njukkal la ci asukuru tey tudd xéewal yi ko sun borom def di ci sant sun borom moom la waaye xasiida uh, tagg yonent bi sallallahu alayhi wa moom la waaye en même temps xasiida julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa Euh, moom la mhm. te li gën a neex nag ci xaside gi sëñ bi ni mu ko defaree daa yéeme xaside gi ñaar fukki bayit la ak ñeent xaaju xaside gi te mooy fukki bayit yi ak ñaar yépp sëñ bi da cee julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam badihu salli wal sallim sarmada ala imaamil mursin ahmada julli bi rabbal wara salli wa sallim kulla hiin ala nabiika rahi saalihin noonu karimu salli bi salaamika ala man istafayta wa hada fa ala noonu akramu salli abada wa sallima ala si xaada ilayka alulama taslimuka albaaxi ala afdal man mada wa man yaati man fi saman yasir li afdal wara muna wa salli musalliman ali maha bitin xasal wadoodu salli wal sallim fi lwuxoot ala si madda ilayna xayra xóot xayra xóot mudda salaamayka li afdal wara kama lahu xablu mara tasu wara ahadu salli wal sallim duuna adat ala nabiyina bu salaati mahat ak nag wasil salaami an salaati sarmada وخدمي إلى الشافعي أحمد رديت عن ربي وعن وسيلتي صلى عليه مبقيا جميلتي أكبر أبقى صلاة وسلام أبدا على الذي كوني خديمه bada fukki bay di ak ñaar te mooy xaaju xasida gi lépp julli ci yonent bi la kon xasida gi xasida julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama moom la yàlla yow mi aji fent ji turu yàlla woo di ba diix yow mi nga xam ne li ngay def doo ci joxe droit d'auteur yaa ci jiitu kenn njëkku kenn njëkku la ci waaw ba diixu samaawaati wal ardi mhm, mu nga ko moo fent asamaan fent suuf fent mi def yëpp yow yàlla yow moom nga xam ne yaa fent loolu yëpp na nga julli te sëlmal ba faw ci ki nga xam ne mooy imaamil mursalin ahmada kon gis nga bayit woowu rek tagg na ci maam taw wéetal na ci yàlla indi tur wi di badix aji fent ji waaye ba noppi julli ci yonent bi salli wal leen sabala julli ba faaw nag ci kan ngay julli mu ne Ahmad mooy ki dàq sant ci mi defi Ahmad mooy turu yonent bi nga xam ne moom la Isa waxoon ne wa mubashiran bi rasulin yaati min ba'di ismuhu Ahmadu Ahmad moom ngay julli ci moom mooy njiital ñi yàlla yónni kon xam nga bayit wi euh, tawxiit a ngi ci julli ci ngi ci tàgg yonent bi ngi ci rabbal wara salli wa sallim kulli hiin ala nabiyika raisi salli yow yàlla mi borom mi ne fi yow yàlla yow mi aji fent waaye yow yàlla yow moom mi def nga xam ne mi def yëpp yaa leen moom yaa leen bind yaa leen yaay seen boroom na nga julli salman kulla hiin waxtu wu ne saa su ne jamono ju ne na nga julli ci sa yonent kan mooy sa yonent boobu mooy njiital ñu baax ñëpp gis nga bayit moo bayit wu njëkk ba rek ñoo yem turu yàlla wi julli salmal tàgg yonent bi indi turu yàlla wi di karimu tedd ki baax ki jox jox ki yeyoo ak ki di jox ki laaj jox ki laajul di joxe te la ngay joxe wutoo ci essance wutoo ci loo cay wottee na nga julli ànd ak sa sëlmal ci ki nga xam ne moom nga tànn moom nga gindi moo tax mu kawe kon yonent bi mooy al mooy alhaaji yi kon bayit boobu itam tur yàlla yi ñëw na ci julli ñëw na ci sëlmal ñëw na ci waaye tagg yonent bi ne mooy ki yàlla tànn mooy ki jub mooy ki kawe ñëw na ci indi yàlla tur yàlla bi di akramu tëbéydu ca topp iqra wa rabbuka al akramu allati allama bil qalam hmm, yow yàlla kon yow akram na nga julli ba faaw sëlmal ba faaw ci ki nga xam ne moo mat borom xam-xam yi ñu ñëw ci yow gis nga moom itam comme la ma waxoon ci bee rek julli sëlmal indi turu yàlla wi ba noppi nag tagg yonent bi ne mooy ki wammat borom xam-xam yi jëmaleen ci yàlla taslimuka al baaqi ala afdali man mada wa man yaati wa man fi zaman ne yàlla mooy aji des ji wa qadimun maalahu bidaaya wasoo baqa in maaloo niha yàlla mooy aji njëkk ak njëkkam gi amul fa mu tàmbalee waaye mooy aji des ji te desam gi amul fu mu yem xam nga ni loolu tawhid ju mat sëkk la kon yàlla sa julli euh, yow mi aji des yàlla na nekk ci ci nga xam ne moo gën ña weesu moo gën ñi ci jamono ji moo gën ñay teew loolu li aw tàgg wu mag a mag la kon bay di turu yàlla wi julli ci yonent bi sëlmal ci moom tagg ko ne mooy yonent bi mooy ki gën ñi weesu mooy ki gën ñi teew mooy ki gën ci ñi ñëw kon ku mel ne moom amul waaw daan ne yow yàlla na yombalal gën gi mbindéef na ko yombalal xéwal te julli sëlmal ci moom ànd ak mbégte moo xam dana am yasir li afdil waral mën naa wasal musalliman ma mahabitin asal kon tàgg na yonente bi julli na ci moom ndax nee na mooy ki gën ci mbindéef yi mhm. daan ne yow yàlla yow mi ay wadduut na nga julli sëlmal ci waxtu wu ne ci ki nga xam ne moo ñu wamatal euh, mu jëm si ñun gën gi dund gën gi xont wa doodu salli waltu salim fi lu xoot alati ma da ilinaa xëy na xóot mhm. daal ne yàlla sa julli ak sëlmal nanga ko tàllal ñeel ki gën ci mbindéef yi nekk nga ko joxe naka nga tàllalee ci njëkk ñeel ko jox ko asuwara mooy saar alxaani kon mi ngay tàgg yonent bi ne mooy gën gi bindeef waaye ma ngi koy kañit ne moom la yàlla jox alquran soog ne ahadu salli wal tusallim doona abd ala nabiyina bushaarati ma àdd kon gis nga foofu indi na turu yàlla wii di ahad turu yàlla wu màgg la oo xam ne ñëw na ci alquran benn yoon képp la ci ñëw xul huwa allahu ahad baada audu billahi min seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim qul huwa allahu ahad ñëw ci saaru màgg woowu nga xam ne taadilu sunatul quraan ndax dafa indi euh, turu borom bi indi melom yu kawe yi nga xam ne ahad dafay tegtale ci ahadiyatullaahi kennuk yàlla gi wéetuk yàlla gi yàlla mooy ki nga xam ne mooy càppaaculi moo wéet ci melow yu màgg ya ak melow yu tedd ya mhm. moom la ñu ci melaw màgg ak rëy ak taar yàlla kenn la ko xam ne euh, ci jëmmam amul kuñ koy nuróoleel amul kuñ koy gam yàlla kenn la ci ay melawam amul ndend amul bokkaale yàlla kenn la ci ay jëfam amu ci bokkaale amu ci mm, ku ko ci dimbali kenn la ci uluxu amul kuñ koy gam-gamleel ci sopp ak màgg ak toroxlul mhm. kon gis nga baatub ahad ji ni mu feesee dell ak tawxiid ni mu feesee dell ci indi ahadiyatu suñ boroom nga xam ne tawxiid yu màgg la boo ne alhamdulilah rek indi nga tawxiidul uluhiyya ak tawxiidul rububiyya yooyu yëpp feeñ na ci Mm-hmm. yàlla kenn la mm-hmm. amul keneen amul kuñ koy ñaareelal ci turam ak amul kuñ koy ñaareel ci jëmmam ak ci meloom ak ci jëfam ñett yii lu fi ne yàlla kenn la ci amul kuñ koy bokkaaleel amul kuñ koy gam-gamleel amul kuñ ko ci nuróoleel kon gis nga axat ji ni mu feesee dell ak tawhid damaa bañu toon guddal su ma bañu toon a guddal danaa ci gën a ñëw mm-hmm. ci ahadiyatu gi mhm. nga xam ne yonente ba fam ci àgg kenn àgg ko fa kon yàlla yow mi nga xam ne yaay ahad na nga julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallama te ci moom ci lu amul àpp ci lu amul lib ci sunu yonente bi nga xam ne mooy mbégtem maad mhm. kon gis nga salaat yooyu ni mu ñëwee wasil yi han salaati sarmada na nga jokkale sama julli ak sama sëlmal ba faaw nanga ko jokkale ci ak sama liggéey jëme ko ci yonte bi nga xam ne mooy achafi te mooy ahmad moom itam tagg la ak julli ci yonte bi gërëm naa yàlla gëm gërëm naa sama wasila muy yàlla ak yonte bi yàlla nga julli ci moom yow yàlla yow mi nga xam ne yaay aji desal samay rafet rafet ak nag ab xaa salaatin wa salaamin abada ala si kaw nu kaw nii xadim hu bada gën ngaa desi julli ak sëlmal ba faw yàlla nekk ci nga xam ne nekk gi ma nekk di koy liggéeyal feeñ na kon gis nga fukki bayit ak ñaar yoo xam ne yëpp sëñ bi da ciy tagg sëñ bi da ciy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama kon xasiid ak julli ci yonent bi la waaye leeral naa tawxiid gi ci nekk wéetal yàlla gi ci nekk euh, leeral naa ko Mhm. waaye euh, xasida ak sant yàlla la mhm. sëñ bi da ci sant suñ borom santuk sukkuru mooy delloo ko njukkal daa jasaullahi wa rasul kulli li sukrihi bi xëyri suul li ma puuse daal li puuse sama lépp may sant yàlla mooy fay gi ma gi ma yàlla fay ak fay gi ma yonte bi sàlla xam fay yaskuru rabbal alamina ahmadu ala basirin ismo muhammadu ahmadu mii ahmad tur la ci turu sëñ Tuubaa yi ki ñuy wax ahmad day sant day delloo njukkal saa su waxtu wu jamono ñu ne éternellement continuellement day delloo njukkal yàlla mi borom bi ne fi ci lan la koy delloo njukkal ci basiir bi nga xam ne bégalaa kon bi nga xam ne turam mooy muhammadu kon lillaahi sukkur yi wa hamdi sarmadaan bilaa rujuuxin lii wa xumri humidaa kon xasiid ak sukru la waaye xasiid ak alhamdu la sëñ bi da ci sant yàlla cant ko hamdu ala nasirin ismuhu muhammadu yahmadu rabbal alamina ahmadu waaw waaw ahmad tamit tur sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa daa bari tur de ahmad muhammad ah, xaadim xadim ala abdul xadim ak yeneen tur yu bare bare ahmadu mii nag day sant kii nga xam ne mooy xuppaakoon bi te turam di Muhammadu day sant boromam ci moom ba faw mhm. kon xasida ak euh, sant la te alhamdu nag ci tawxiid la bokk ci wétal yàlla bokk alhamdu mooy assanaahu ala llaahi taala bi jimili sifaat yi ngay sant yàlla ci xéwalam yi nga xamee ne ci meloom yu rafet yi ci meloom yu taaru yi kon xasiid ak alhamdulilah xasiid ak asukru la te nag alhamdu ahammu ahammu min asukri hmm. alhamdu mooy assanaa bi lithaali ala aljamili sawaun taallaqa bilfadaili kal ilmi am bilfawaidi li kalbiri wa kalbir loolu mooy alhamdu nga sant ci làmmiñ ci yu baax yiñ la defaral moo xam yu baax yooyu nag euh, dafa am yoo xam dafa aju ci ay ngëneel ni ko nit ki am xam-xam wala nit ki euh, defal la ak njekk yàlla dañ koy sant ndax day defar am njekk jëm ci ñun waaye yàlla des koy sant ndax melaw sant yëpp daa ci moom jikko yi ñu sant yëpp melo yi ñu gërëm yëpp waaw melo yi ñu gërëm yëpp daa nekk ci ci moom hmm. ak ak alhamdu di sëñ bi indi ci xasida yi am nañ tuuti tàqalikoo su ma bañ toon guddal danaa ko indi kon ak sukkur mooy nga reconnaître xéewal gi ñu la defal ci anam màggal ci la xéewale dee alhamdu nag mooy tudd tudd wu rafet ci anam màggal ci nga ci ngay tudd alhamdu moom xéewal mën na koo jiitu xéewal mën na koo ñàkk jiitu lépp di muy cantuk xamdu waaye cantuk sukkur moom laa yasixu ila ala nihmati kon mi ngi noonu cant cantuk alhamdu ak cantuk sukuru moom la sëñ bi def fii ci xasida gi bu dee cantuk xamdu gi moom leer na turu yàlla yi mu tudd yëpp day wane melo yu tedd yu baax yooyu nekk ci yàlla mu di ko ci sant te xasida gi nag sëñ bi indi na ci ay turu yàlla de indi na ci badix aji fent ji indi na ci rabbal wara borom bi ne fi indi na ci karimu aji tedd ji indi na ci akramu indi na ci albaaxi waaw indi na ci wadoodu indi na ci euh, ahad indi na ci allah indi na ci arab indi na ci rabbal alamin borom mbindeef yi kon yooyu yëpp ay tur la ci turu sunu borom yëpp di symboliser tawhid waaye indi na ci alhamdu ak sukkuru kon xasida gi mi ngi noonu xasida ak cant la xasida ak delloo njukkal la sëñ bi mi ngi delloo njukkal yonent suñu borom ci sant xéewal yi ko suñu borom defal te jaarale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na maa ngi delloo yàlla njukkal di sant ay xéewal yi ma def safirtu obil ala yi inni muhaddisun kon maa ngi sant xéewal yi yàlla moo ñu jox ci barke bi bi xayra xóot gën gi xont gën gi dund mhm. ma ngay sant yàlla ci sant xéewal yàlla jox na ko lim bëgg yëpp yàlla yombalal na ko la jafe woon jox naa yonent bi ay liggéey boo xam ne nii lépp lu ma sooxoon naqari ma loolu daq na ko mu jëm ci keneen ku dul sama jëmm te selal na selal na ko yàlla yow gërëm naa la gërëm yonent bi te yàlla yaay yaay yaay aji desal samay baax baax barkeb yonent bi feeñ na fés na ñeel ma tey tey bis ni tey ci weeru gàmmu yi yonent bi mooy almaahi moo far lépp lu ma soofoon diggante meg ku ma soof mhm. maa ngi delloo yàlla njukkal di ko sant ci def gi mu def nekk gi ma nekk di liggéeyaa kon yonent bi loolu di fës abqa salaatin wa salaamin abada ala lati kaw ni xadimuhu bada mbooleem li ma soof li ma naqari daw na jëm ci keneen ku lu man war ma ginnaaw ba faw sa dootu si sama dund gépp def koo sant sama dund yëpp dund gun sant la walat makaarihi li xayri sarmada bila rujuin lii wa umri humida ak lillahi sukriya wa hamdi sarmada bila rujuin lii wa umri humida kon ma ngay delloo yàlla njukkal ni maa ngi sant yàlla ndax lu dul fayug yàlla jublu moo ba àjjana lor wala jàjj loolu jëm suul ci man kon gis nga yépp ci min baabi tahaddusu bi ni'mati moom la kon xasidak wéetal yàlla la xasidak delloo yàlla njukkal la ci asukuru xasidak sant sant yàlla la ci meloom yu rafet yi nga xam ne dañ koy sant ci melo yooyu te mooy tur yi mu indi julli ci yonent bi fukki julli ak ñaar di xaaju euh, bayit yi ci fukki bayit ak ñaar julli yoo xam ne dafa amul àpp sarmada lay wax kulla hiin lay wax euh, yooyu lay wax wasil salaami an salaati sarmada ab xaa salaatin lay wax kon julli yu mat sëkk ci yonent bi sallallahu alayhi waaye tagg yonent bi nee na yonent bi mooy ahmad moo dàq sant yàlla ci mi def mooy njiital yonent yi mooy njiital ñu baax ñëpp moom la yàlla tànn moom la yàlla jubal mooy ki kawe moo womat borom xam-xam yëpp jëmaleen ci yàlla moo gën ñi teew moo gën ñi ñëw moo gën ñi ci jamono ji mooy gën gi Euh, mbindéef mooy ki gën ci mbindéef yépp mooy sunub yonant mooy ki yàlla yónni ci moo ci ñun mooy rasulullah mooy kañu ràmmaloo mooy ahmad mooy kañu euh, tànn ka mooy sama sëriñ man sëñ Tuubaa mm-hmm. ki may euh, mi ngi tàgg yonent bi ne yonent bi kat mooy Bachir mooy Nasir mooy kii bëgle waaye mooy kiy xuppe gis nga ñaari tur yi mu ci indi fii Bachir ak Nasir xasida yi tagg sëñ Tuubaa yëpp loolu moo ci nekk mhm. Bachir gi moo indi tabog yonent bi sallallahu alayhi wa sallama moo tax euh, fal xaysu min sak bi min sak bil barri soo xajalin wa laysu xaabin li xawfin minhu farraaru man ca euh, raaya nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi dafa tabe tabe tabe ba day gàccaal ab taw taw taw waame waaye gaynde da koy daw ngir ragal ko loolu mu indi kiltaa yadayhi lahaa sahyun tulaasimuhu baslun wa baxsun liman laanoo man jaaroo ñaari loxo yonent bu mu ci man a doon am na jëf jum baaxoo baxsun ñeel joxe ñeel ñi nooy waaye nag baxsun mbugal ñeel ñu euh, jeng kon yonent bi dafa équilibré mu indi bashir mu indi nasir bashirun liman lillahi bil xaq yusinu loolu la wax ca muqadamaat yonent bi mooy bigal képp ku nangul yàlla waaye nasirun liman bil kufri wa shirku yu'lanu yonent bi mooy kii xupp mboolem kuy déclaré kéefër ak bokkaale yàlla allahu akbar xaysun basiru ca mawaahibu laysun nasiru kon mu ngi noonu yonent bi dafa équilibré day bégle en même temps day xuppe waaye kii ma kii may indi na ci ne Muhammad mooy ki ñuy sant di ko santaat Muhammad mooy ki nga xam ne mboolem jikko yu baax yëpp mboolem jikko yu mat yëpp daa ci moom Muhammad lool lay wuññu nee na Ahmad mii nag moo far kéefar moo far bàkkaar mhm. gis kon ni ci ciy indee turu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama kon daal xasiida gi mi ngi noonu xasiida ak tàgg la tàgg yàlla wéetal yàlla euh, sant yàlla ci cantuk xamdu cant yàlla ci cantuk sukuru julli ci yonent bi euh, tàgg yonent bi sallallahu alayhi wa waaye indi na ci nag ñaari turam moom Sëñ Tuubaa um, um ci rappit te mooy ahmadu indi na ko ci indi na ci xadim hmm, indi na ci ahmad indi na ci euh, xadiim ñaari turu yonent bi la sallallahu ñaari turu sëñ tubaa yooyu di turu sëñ na ci xasida gi yaskuru rabbal alamina ahmadu ala basirin ismuhu muhammadu ala nasirin ismuhu muhammadu yaxmadu rabbal alamina ahmadu mm-hmm. kon mi ngi ala allasi kaw xadimuhu bada ca tarjumaan yu mujj ga xam nga barakaati yowmal yowmil mawlidi fii barakaati yowmil mawlidi rabihil awwali moom lañ tënkee xasida gi waaye ba jeexee na barke bisu gën ak àddina ci weeru gàmm euh, kii na ci man bila afatin wala kadrin fiya ci lu amul benn nax-nax amul benn gàkk-gàkk wala bayni wa bayna amul kenn sama diggante kenn ba faaw yow yow borom bi fi kon na nga wàcc ci man barkeb barkay bisu barkeb bisu barkay bisu nga ne àddina ak yonent bi ci weeru gàmm na nga def nag abyaat yii bayit yii te mooy ñaar fukki bayit yii na ko def xadda ak kulli ma kulli faatani fi sirri wala alanati na ko def muy fay lépp lu ma faatoon ci lu feeñ ak ci lu nubu fii kulli ma ma daa ci lépp la woyoon si sirina ci at yi amin yaa rabbal alamin kon gis na daal xasida gi mi ngi noonu baxru rajas la ginnaaw géej la xasida ak gàmm la xasida ak wéetal yàlla la euh, xasida ak euh, sant yàlla la xasida ak delloo njukkal la yàlla tudd xéwal yi mu ko defal waaye xasiday euh, xasida ak julli ci yant bi sallallahu alayhi wa wax naa ko li ci neex mooy ñaari fukki bayit ak ñeent tolloo ko xarafi laa ilaha illa muhammad rasulullah te xasida génn loolu maanaa laa ilaha muhammad rasulullah xasida gi génn ko ba noppi rek mu jël fukki bayit ak ñaar di xaaju 24 yi yëpp bayit bu ci ne mu indi ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa may jeexale nag mooy bayit bi waduudu salli waltu sallim fil wuquud ala alladi madda ilayna xayral xuut madda ilayna xayra xuut waduudu salli waltu wal tusallim fi lwuquut ala allati madda ilayna xayra xuut ci lu wér ci lu amul benn werante ci lu amul benn sikk sàkk bayit wii ku koy sikkar trois mille huit cent cinquante trois mille huit cent cinquante trois ñetti junni ak juróom ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñett xaw ma looy manqué xaw ma lu lay jafe waaye du doon ab dund loolu moom lu wér wér la lu ñu euh, mu jarrabun fa sa indi mhm. lim bi comme bare ci yow mën nga koy def 66 juróom-benn fukk ak juróom-benn ginnaaw julli gone wala nga di ko def 313 bu fekkee lim bi bari na ci yow waaye daal jamono ji nga xam ne lépp a yokk dund bi lépp a seer lépp seer bayit yi moom ku koy jëfandikoo euh, ah dund moom loo xontoo du la jafe wa doodu salli wal tu sallim fi luxuut ala allati madda ilayna xayra xuut addiyee sëñ Tuubaa mag mu baax nag di kilifa moo ma ko joxoon waaye jarabtuha fasaha hindi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.